bésu màggalug poroxaan gile jubluwaay bi nag benn la mbokku taalibe yi bawoo ci diwaan yu fasantikoo yi ne ci biir réew mi ci garage bi la nag ku ci ne say bagage nag ci sa loxo ngay jéem a gindeeku nag ci sa bërëbu dal. wax dëgg si yàlla dañuy am mbégte bu baax a baax a baax si ñëw poroxaan ndax lu mel ni kenn ku si nekk dangay ngay am yéene ñëw si waaye yàlla mooy moo mooy mooy def mooy gën a jàppane lépp ba nga xam ne ni dañ siy ñëw ndax bis bi moom day bisu. soxna jaara bégte bi mooy poroxaan moom su ma koy sentir chaque jour du poroxaan du màggal gi rek moo tax ma koy sentir poroxaan dama koy sentir ndax damay wax ne Touba Ndorong ci Kaolack ga ma dëkk benn benn appartement la ci benn benn quartier la ci Touba ga Touba Mbacké tamit dama ko boole ci Touba Ndorong voyage yi nag léeg-léeg mu sori boole ceeg métti. at moom wax dëgg yàlla mbégte rek lañ ciy yëg daal waaw euh, ñëw bisu maam jaara moom benn jigéen bu am màggal mënoo si yëg coono daal. loo ci mënti fay ak loo ci mënti daj ci yoon bi rek man amul coono daal waaw sant bu wér a wér rek. waaw ñaan yàlla yàlla def jaam ci réew mi xam nga def xéewal yu bëree bari daal xéewal yu saawaan baawaan loolu rek la ñaan waaw Abdou Khoudous Diakhoumpa jërëjëf. ñoom ñi la ñëpp nag daal di nañu rafetlu taxawaay bu responsable bi nga xamee ni nag nemmeeku nañu ko ci lenn ci chauffeur si ci seenuk yoon mu mel ni nag woote bi nga xamee ni comité d'organisation bu màggalu Porokhane amaloon nañu ko ci chauffeur si ñoom ñi la nag dégg nañu ko bu baax yéen ñii di seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñuy publication mën ngeen abonné Al TV te bu leen fàtte laal cloche bi